askan wi am kóolite ci seen attekat yi waaye fexe tamit ba attekat yi ñu jox leen seen gëdd gp yéen dëggal ko ne jomaay kay waxtaanu farata ku nekk joxe sa xalaat lépp ngir jub-jubal jubbanti comme slogan bi rek donte ñi ko jiitu tamit xamoon nañ ay slogan bés bi yéen a kaay ne ngir ñu am ab xatte justice bu taxaw dëgër këk sur ne xatte moo doon xatte waaye fa mel ni fi moom la ñuy xatte ay mbiram Bassirou Diomaye fa a samp ay laaj ci bi ñuy attee professeur Babacar Gueye bi yor wàllu yombal bi ci ak respect xalaat yi nag si ki ne ku ci ne fay wuute maître Pape Sène ne sama xalaat daal mooy ndaje mi ñu xamal dialogue national bii yaakaar bu mag la Mamadou Thior ne gis ngeen ab réew justice moo ko yor su doxee rek léppay dox pour ñëpp nag Seydi Gassama ne dialogue bii kay coppite yii fa nar a dëgëral li ñuy wax état de droit Maurice Sidiock Dione moom fa wax ne justice maanaam xàtte mooy bànqaas bi gën a dëgër bi askan wi di sukkandiku Serigne Bassirou Gueye ne ko moo tax du ñu tàyyi mukk ci xalaat ci li war a seeni kàddu ma nga ca yor yor yéen a nag gis-gisam ci dialogue bii ma nga ca Vox Populi fa caa xamle ne assises yi mosu fee xam ci Sénégal guléet te lépp ngir ñoŋal suñu wàllu atte la fa caa yokk ci la mandat a kaay na gis nga atte kaay muy justice bii warta nekk xeet wu ñu jël rek di fayantoo ku ma neexul ma jàpp tëj ku àndut ak man ma jàpp tëj ca 24 heures ba tey Mimi Touré na président Bassirou Diomaye Faye mi nag jaay doole gi ko def ci wàllu yoon ci jamonoy Macky Sall xanaa moom du nekk président ba pare di ko teg ñeneen turbine yéen a kaay ne man daal faa gëm ne wàllu yoon moom politiciens yi ñoo leen di contrôler rek def fa baax ndax sénégalais yi demoon ba wan ginnaaw seen àttekat yi ci wax mu ne la fii kumba xam nday ak kumba xamu nday moo fi am yoon tëddeewul njaaxaanaay te loolu baaxut ci am réew turbine yéen e kaay Cheikh Baara Ndiaye nag ak Bamba Kassé wane nañ fa seen bopp de ca ndaje ma spectacle ndax Cheikh Baara fa ñaawlu doxalinu Bamba Kassé le verdict kaay ne maître Ciré Clédor Ly moom nag demutoon ca ndaje ma ndax ma nga bitim réew di lay ay kiliyaanam terewul nag bind na bataaxal di rafetlu président Diomaye Faye dialogue national bi ci wàllu yoon mu xoote ndax moom nee na fa yàgg bëgg yoon moom boppam politiciens yi wala kilifa diina wala ci wàllu demutoon naka noonu Idrissa Seck Bougane Gueye Dany Moustapha Niass daal gis nañ ko fa Omar Youm ak waa PDS ak ñu ñu jàppoon tëj kasoog askan wi daal ñoom it fañ doon wax seen xalaat ci ne àtte war a doxee président Bassirou Diomaye Faye na leen wax leen parce que wàllu àtte ci moom faaw ñu xamante ay coppite mënta ñàkk ma ko waxee ci la républicain yéen kaay la dépêche yéen kaay ne président Diomaye kay fa doon wax njëriñu dialogue bii mu woote ne fa lu leer ba yegg ca naan ba nekk fële ca Sabodala ñu di ko sulli nga ne 10 pour cent la ci état bi am te diggante ba 2018 yore wàllu sulim or ma fayuñ dara état bu Sénégal ci trésor bi déedéet bés bi yéene kaay moom fa ñoo xamal ne police bu Sénégal leeral nañ coowal Aysatu Fay doomu Mansour Fay boobu ak ñaari policiers ya police fa wax ne ñaar fukki millions ak benn lañ ko jàppee woon ñaari policiers yi tamit nangu nañ ne ndaw sa fa leen a jox 300 000 francs ñu bàyyi ko mu dem waaye fa leen koo neexalee nag ci sagom ñaari policiers yi nag am problème fi mu toll nii xam nga la trois fañ ko war a àttee ci kàddu ñu waxoon njiitu jëw waaye fa am ko ko porte plainte ci wax ju ñaaw ju ko waxoon démb takk dere fañ ko jëlee ca kaso ko yóbbu ko ngir déglu ko léeg si ko yéen a kaay ne waaye fa bañ na du tontu enquête kat ya ndax fa leen a wax ne waa ji li ma ko wax nii ba mu porte ma plainte laa ko xooxoon te fa ñoo wote loi amnistie kon kenn warutuma cee topp fi mu nii moo tax du leen tontu de faa bañ ka tontu enquête kat ya nag mooy homme d'affaires bi ñuy wax Dora a kaay nee a jógee fuñ ko ah, yu bokkoon ci nguuru Macky Sall gi jóge fii ñoom tamit du Dora Gaye de am na ñeneen ñu nar a daanu libération na tey ci suba lañ ko nar a defeere moom Dora Gaye ba nag fa feeñal ñetti chèque ak ay faux plan cadastre yu ñu dugal ci dossier ba fi mu toll am na ñuy lijjanti ngir juboo am ci ñaari parti ki juboo wut ak président Diomaye Faye ci lim def mooy général Kandé moo jiitoon armée de terre président Diomaye Faye yóbbu ko ca réewum Inde mu nekk fa attaché militaire participer weeru octobre ak décembre bii di ñëw lépp ngir assemblée nationale ñu raxas fa politiciens ya yóbbu fa ñoo xam ne askan wa lañ fay nekkal waaye opposition bi xanaa du seetaan bañ betti leen def leen ko la def ñoom bato tubaab yi mooy di napp-napp gu bon ci suñ géej gi te mooy kaay ne ba léegi tubaab yaa ngi napp nag révélation yéen kaay moom fa ñoo xamal ne maire bu Kaolack Serigne Mboup fa renforcer administration ba ci ay meuble bureau ca mairie Sénégal fay feete anniversaire am juróom-ñeen fukkeelu at ak juróom-ñett 98 ans yàlla na xat yi gën a yokk rek ba 200 ñaar téeméeru xat le public yéen kaay fa ñoo xamal na elew bu jigéen bi ñu doon wax Aminia nga xam ne fañ koo sàccoon kidnappé ko fii Dakar mujj nañ koo gis ca diwaanu Ziguinchor aay loolu de baaxut laneen lu baaxut ci gis-gisu Birahim Seck mooy pari sportif naar bi ba tax Birahim sekk fa sàkku ci président Diomaye Faye kilifa yi réew mi ñu jël ay dogal dakkal xaaye pari sportif naar beeg x bet ñoom seen ndax dana ray gaañi xaalis xam yóbbu ko ci naar bi mu leen di dàq rek l'observateur moom fa xamal mbir mu yéeme ah, yaaw seetal fa xam benn waay bu ñuy wax Aliou Diop fa xam jabar ñu dem ba sëy ba neexatut jabar ji dina ko may ma sama baat fa sonn doy na sëkk Aliou Diop nangut koo fase te ñaan baat gi neexut ko xam nga nu mu def fa jël pexe ngir rey jabar ja aay bàyyi bañ tëdd mu jël ngeganaay bés ko ca bakkan ba ngir bu mën a nokki mu jaaree fa dee ndaw sa mujj rëcc ñu yóbbu ko ca tribunal bu mbuur ngir xàtte ko hmm, waa ma ne Aliou Diop gis nga jabar bu la ñaanee baat rek fase ko bu fa nekk naan njaboot giñ ama tax ak wala mbokk laak dox daje laak ak sago mag loolu yëpp ko xool fase ko rek ndax soo ko bàyyi mën na laa jox lekk def ci posan nga dee te ku lamb yaa tey demal takki moromam mu jeex waaye di ko jéem a rey njuumte lu mag la léegi bu ñu la tëjee kaso fa ngay perte dis perte la sec ñàkk sa jabar dootoo mën a takkaat jabar moom mu dem sëy keneen su ko defee yow xay xenoo la asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu mbokk yi dal leen ak jàmm ci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 yéex naa ñëw